ba der càmm bi nekk Thiès defe naa foofu liggéey bi commencé waat na amoon na ay gàllankoor yi nga xam ne ay gàllankoor administratif la budget bi woote woon nañ ko ren mais dañoo waroon signé avenant avenant bi li ci am mooy bi ñuy def cahier de charge bi ministre bi daf euh, ministère de l'enseignement supérieur dafa délégué woon dafa amoon benn maître d'ouvrage délégué kooku cahier de charge bi mu defoon ba ñu demee ba liggéey bi pare parce que liggéey yi pare na a quatre vingt pour cent ñu gis ne am na ay Euh, lot yi nga xamné bokul won ci cahier de charge bi ñu amone ci ñu amone ci ay difficulté ak banque mondiale bu nga xamné mo nekkon ci projet bi banque mondiale né mom projet bi né mom projet bi comme dafa am ay lot yu ñu ci bokul won ki ko jox entreprise biñ ko jox waru ko won gagner parce que bu mun na bu offrir woon ci lot yoyu bu ci defaroon offre du doon moins 10 ans dañuy wax affaire bi mu leer nañ ministère bi jël affaire bi wat ko xol défar mais and ci gouvernement du Sénégal ñu budgétiser mais buñ ko budgétiser tamit day am yoon yu nga xamné fa lañuy jaar ko des marchés respecté wut avenant justifier ko parce que dafa justifier wul won bu baax il fallait ñu justifier ko loolu motax mu jël temps mais du lenen bloqué na fi ay at yu bari ñaari at ma fekk problème bobu mu am fi amay problème impense ba mu ñëwee lijjanti nañ ko tey ñu ngi entreprise baa ngi liggéey fii ak ñaari weer dinañ ko réceptionné